dañu jëm ci ay bis yu am solo ci histoire du Sénégal mooy lii nga xam ne feeñ na muy pétrole bi ak gaz bi sénégalais yëpp ñi ngi def seen xel ne Sénégal am na pétrole ak gaz dinañ ci gis ñoom seen yokkute loolu naxee mbaay la ndax tey jii gis gisuñu ñun ci si ñu jàngat lenn loo xam ne le président Macky Sall teg na ko ci jéego boo xam ne su pétrole bi ñëwee dina tax indi yokkute Sénégal te pétrole dama koy yàkkamti dama koy fàttali. pétrole du ressource boo xam ne du jeex ba abadan nekkul par exemple comme euh, énergie solaire énergie solaire tant que jant mi ngi fi am. dina am énergie solaire pétrole melul noonu moo tax ñu tuddee ko énergie non renouvelable suñu pétrole bii ñu am mun na doon fukki at mu jeex mun na doon ci ñaar fukki at mu jeex mun na doon ci fanweeri at mu jeex am na tey ñu amoon pétrole ci ay réew yoo xam ne tey ji seen pétrole jeex na takk bon ñun comme xamuñu pétrole bi ci ñaata at lay dem war na ñu fagaru ba nga xam ne su jotee ñu war a mun a seet naka lañ koy doxalee loolu nag moo amul ci réewu Sénégal amul benn structure boo xam ne benn jéego boo xam ne président Macky teg na ko bu ñuy wan suñu pétrole boobu su ñëwee ñun ñii sénégalais dinañ ci jëriñu amul. bon loolu moo waral conférence de presse bi pour may. fàttali waa Sénégal pour may yee waa Sénégal ne bu ñu def comme Ghana bu ñu def comme Libéria bu ñu def comme Tanzanie réew yooyu ñoo ñu ëpp pétrole ba seen pétrole feeñee seen gouvernement yi dañu dem di jël ay bor yu bari parce que dañu ne su pétrole bi ñëwee dinañ am luñ ko fayee ba pétrole bi ñëwee ba egsi ba ñu commencé ko produire xool nañu ne seen boor yëpp pétrole bi moo ko fay ba koom-koom bi nga xam ne yaakaaroon nañ ko ne dinañ ko gis ci ñoom dara lañu gisu loolu moo waral tey jii gana soo xoolee gana tey jii dafa dellu ginnaaw ci problème mu économie te Ghana ñoo ñu ëpp pétrole Tanzanie ñoom ñoo ñu ëpp pétrole Libéria ñoom ñooñu ëpp pétrole mais tey jii benn ci dëkk yooyu. doxul moom la ñu wax malédiction du mal malgérance la parce que pétrole bi bi muy laata ñëw amuñu benn structure boo xam ne tëral nañ ko Tchad rek moo ci sauvé te Tchad li leen sauvé mooy que banque mondiale dafa ñëw gérer leen seen pétrole mais tey jii ñu ñuy jël xool leen gouvernement boo xam ne ñu ngi génn ci ay scandale scandale bërki démb ñu épinglé ay ministre épinglé ay DAGE épinglé ay directeur épinglé lu nekk mais léegi administration boobu ndax ñun dinañu mën a gérer suñu pétrole moo tax Macky Sall dafa war a dem dafa war a dem parce que yoreetul réew mi ni nga xam ne moom la ñu yaakaaroon en tant que chef d'État alors lii moo waral ma def conférence de presse d'abord li ñuy def euh, wax ne euh, le désespoir de l'attente le désespoir de l'attente booy lan mooy dañuy toog fii rek di xaar dina pétrole bi léegi mu ñëw ku ci nekk yor sa projet bokk ko wala njëgënaayu si su projet bi ñëwee dina am pétrole bi ñëwee nangam nangam pétrole bi egg si ñu leen di lay guddi ak bëccëg fii la jaar ak lële lañ ci def ak te déjà dañu xamul ne pétrole bii feeñ ñun balaa ñu cee lekk dërëm ña ko feeñal dinañ ci lekk lekk lekk ba gii jël fay si seen bor ci recherche yi ñu doon def. ça c'est une réalité bu ñëpp war a xam da ngeen yaakaar ne rek ñii dañu gas seen pétrole ba pare pétrole bi feeñ ñu ñëw jox ko sénégalais yi déedéet dinañ ci lekk lépp loo xam ne ba gii jël laa wax c'est-à-dire dinañ ci lekk ba ñun sax dina la ñu nar a tibb ñoom am ko ci pétrole bi day weesu li nga xam ne investir nañ ko ci pétrole bi parce que ñoom ñoo ko feeñal li si des nag président bërki dem nee na vingt pour cent lañ ci am imaginez vingt pour cent li si des taxe na mais non kenn du négocier noonu pétrole pétrole soo koy négocier doo xaar ay taxe ci ay baril de pétrole déedéet parce que lu naqaree contrôler la ñu commencé produire pétrole ngay ñëw di wax ñaata baril di di compter lu naqadee contrôler la moo tax état yi nga xam ne am nañu fulla suñu négocier pétrole dañ koy négocier ci quantité cest à production bi nangam la su génnee dinaa jël suma cinquante et un pour cent waaye nem ñun vingt cinq vingt pour cent lañ ko am moo ko wax de pour cent lañ ci am léegi vingt pour cent yooyu baril pétrole bu nekk dañ koy taxe baril pétrole bu nekk dañ koy taxe te yow xamuloo sax ñaata baril mooy nar a jël que c'est que nga dem négocier ca contrat ba ne eh pétrole bi lii lañ ko estimer un million de baril cent million de baril léegi cent millionnaires bari su ñëwee 60 pour cent ci réew mi lay lay lay dox noonu la ñu war a négocier pétrole waaye ci ay tax donc ñun ñu ngi xaar pétrole boo xam ne su ñëwee dinañ jox Petrosen 10 pour cent dinañ jox xaw ma kan euh, yeneen quinze pour cent et cetera xaw ma naka la ko séddalee noonu li si des yëpp dañ koy xaar ci ay tax vous pensez que seen pétrole maam yéen seen maam moo moom suuf si. cotiser ñu def suufu Sénégal mu nekk une république ku ci nekk war cee am part ñu jox ko benn nit boo xam ne dana ñun vingt cinq vingt pour cent lañ ci am li si des ay dañu compter ay baril baril bu nekk dinañ ci am tant pour cent loolu la ñu nar a ñun gagné baril bu nekk dañ koy taxé waxul ne baril bu nekk dinañ ci am dafa ne baril bu nekk dinañ ko taxé taxe yooyu ñun lañuy xaar ñun sénégalais yi moom pétrole bi pour jëriñu si pétrole bi moo tax bu leen nax seen bopp On n'a pas une administration ici au Sénégal aujourd'hui qui est en mesure de gérer les les les les revenus du pétrole amaguñ ko du saar du ITIE d'ailleurs ITIE man maa ko indi Sénégal man maa man maa leen fi indi jamono ji nga xam ne Ousmane euh, Cissé directeur géologie ñun ñoo njëkk a introduire ITIE au Sénégal yóbbu ko président muy soog a signé ITIE donc lii lu sénégalais yi war a xam la beneen bi mooy li nga xam ne tey jii mooy suma préoccupation préoccupation mooy jaaxle dama jaaxle ci ni président yore réew d'accord vous allez me dire dix ans yaa ngi mel ak moom loolu laa bëgg tamit ma leeral ko bu baax dix ans nekkuma ministre de dix ans joxuñu ma Euh, direction dix ans kenn joxuma ministère dix ans dañ ma ne dinañ la signer benn feuille de mission nga nekk suma conseiller dix ans yi ma def dans le cabinet du président Macky Sall conseiller laa te suma conseiller yëpp ci mine la énergie agriculture ak environnement te foofu laa yemoo loo ko loolu laa ko doon donc ku mu ne ne je suis comptable mais bien sûr mais comptable de des domaines de compétence li nga xam ne loolu la ma woowee woon ba mu ma woowee daf ma ne jàng nga lii jàng nga lii jàng lii am nga double doctorat d'état américain des sciences de la terre et l'environnement ñëwal suma cabinet nga jàppale ma ci xelal ma ci lépp loo xam ne jëm na ci mine énergie ak environnement ak agriculture avec les sols dix ans yooyu yëpp man loolu moo doon suma priorité président dafa am chef de cabinet politique am un comité politique am un entourage politique bokkuma ci woon dafa am de conseillers économiques en économie di ànd ak ñoom di leen laaj bokkuma ci woon président dafa amoon ay conseillers ci lii ak lee bokkuma ci woon la ma doon conseiller mooy li ma yàlla may ma xarañ ci te loolu weesuwul lépp loo xam ne jëm na ci suuf ak ndox ak environnement ak énergie yaakaar naa ne ci ñu demee ba ca kanam lu ci nekk ci la ma ko doon xelal mun naa teg suma baaraam ne leen lii laa ci def lii la indi tey gis ngeen ko Sénégal mu ngi ciy jëriñu loolu laa doon defal Ablaye Wade Ablaye Wade conseiller naa ko li tax ma tàqali ci conseiller Abdoulaye Wade mooy ba mu dàqee Macky Sall mu doon suma xarit ñu jàngandoo màggandoo ma ànd ak moom ba mu ko dàqee laa ne Abdoulaye Wade mënatuma la conseil boobu maa ngi États-Unis suma laboratoire maa ngi woon euh, université d'État de la Caroline du Nord di def recherche di jàngale di jàngale Japon la première fois bi ma dajeek Abdoulaye Wade Japon la ñu daje Japon la ñu daje may joxe cours ci université bu tudd Okayama bu bu tudd Kurash ki ci Okayama la nekk bi may joxe cours di def ay ay ay conférence ñu wone ma ci journal télévisé Japon boobu mu coïncider ak Abdoulaye Wade ñëw Japon à Tokyo mu ne ma dem Mbaye kii dey sénégalais la may nuróo mu ne ko waaw Arouna Coumba Ndoffène Diouf la tudd ñu fexe ba wooma à 11h suma hôtel hôtel Grâce à Okayama ñun mu ne ma président moo la invité pour nga ñëw euh, Tokyo ma ne ko mënuma ko parce que damay joxe ay cours suba boobu maa ngi def suma cours saisonnier yi donc du mun a ñëw mu wax ko président woowaat na ne ma bon nañu daje New York effectivement ba date ba jotee le quatre décembre 2004 Ablaye Wade ñëw na New York ànd ak ndem si yàlla suma xarit Alioune Badara Cissé yàlla na ko yàlla yërëm ak Karim Wade ak madame Mbaye li ma njëkk a wax mooy yow Arona ndax ma ne professeur tu fais le tour du monde fu nekk dégg naa la fa ngay joxe say euh, say say connaissances mais à la fin de la journée on va vous demander qu'est-ce vous avez fait pour le Sénégal loolu moo ma dellu si waat ndax question boobu kenn mësuma ko posé man yaakaaroon naa ne au niveau international damay joxe suma cours ba retraité ñëw Sénégal tëdd mais Abdoulaye Wade mooy ki nga xam ne moo ma yee ba ma mun a bàyyi suma yëpp tey jii nekk ak Macky Sall pour jëriñ Sénégal jëriñ Sénégal moom fi indi moo tax musuma dénk dara loo xam ne ëllëg mun nañ ca teg loxo kenn musul taxaw suma kanam ci gouvernement bi moom président Macky Sall ba ci suqam mi laaj ma dara lu jëm ci suma alal parce que musuñu maa dénk fonds politique musuñu maa dénk euh, fonds public musuñu maa dénk sax programme buy séddale ay ndox kenn musuma kaa dénk te maa ngi sant yàlla maa may moom tamit président Macky Sall télévision laa koy waxee musuma may un million bi gën a tuuti koo xam ne soo ko seetee su la mayee cinq million yaakaar na ne enrichir la un million musuma kaa may musuma kaa ñaan tamit musuma kaa ñaan musuma kaa wax damay gis ñuy séddale ay suuf ak ñi leen di jox loolu suma yoon nekk parce que yàlla teral na ma dem donc nii laa xamee Ablaye Wade lii moo taxoon tamit ma ànd ak Ablaye Wade di ko conseiller le plan Takkal bi le plan Takkal liggéey naa ci lu bëri ak Karim Wade le plan Takkal malheureusement bi nga xamee ne plan Takkal bi war na am ay résultats ci la ñu ci ci la seen nguur daanu ci la seen nguur bu daanoo ci la commencé yëngu politiquement ñu jóge ci plan Takkal boobu mais Abdoulaye Wade je l'ai conseillé programme yii may bind donne-moi premier programme bële bële lii mooy programme agriculture Abdoulaye Wade fii la jëlee Gowana ci programme agriculture te soo leen xoolee ci titre bi dama bind ne sous l'initiative du président Abdoulaye Wade ba ma waxee jox ma lépp luy agriculture agriculture da ngi ni man awma ay programme quelques pages tous mes programme nii la ñu toll programme mu Sénégal yi ma am yëpp moo tax suñ may laaj sa programme programme ma ne seet si ma parce que lii mënuma dajale euh, presque Euh, mat na mat na mat na combien. Euh, mat na vingt kilos mënu ma daje vingt vingt kilos di ñëw di la won suma programme. lii programme agriculture la te programme agriculture bi naka laa ko euh, naka laa ko mun a waxe mooy réew moo gis ci àdduna réew moo gis mu développé ci àdduna agriculture la tàmbali États-Unis agriculture la tàmbali dañu xamul dañu xamul États-Unis agriculture la tàmbalee Europe agriculture la tàmbalee seen agriculture ak mbay la ñu développé ba mu indi xaalis ñu def des banques agricole bi ñu defee des banques agricole nit yi ñëw di jël ci banques yooyu def des assurances ñeneen ñëw ci jël ci banques yooyu tabax ay ay ay ay ay ay ay immeuble tabax ay autoroute tabax ay échangeur ci ci lépp agriculture la jógee mbay lépp ñu nii Sénégal réseau bi mu am rek réseau bi mu am pour waxuma sax li ñu am li ñu yàlla may ci Sénégal ci suuf ak ndox ak nit yu ko bay waxuma sax Sénégal mais mënoon nañu dundal Mali dundal euh, Mauritanie dundal euh, Gambie dundal Guinée yi ci li Sénégal am ñi nga am un million potentiel wu Sénégal c'est-à-dire potentiel pour bay Sénégal un million cinq cent mille hectares la ñu am de terre irrigable soo xoolee deux cent mille sax irrigué euh, euh, euh, def ñu irrigation deux cent mille hectares sax irrigué irrigué yu ñu ko Sénégal man de su ma nekkoon président du ma jël mille et quelques milliards di ko tabax terre buy jëriñ combien de personne moins de six cent mille personne le Sénégal fait sept dix sept mille personnes damay jël un milliard yooyu dugal ko ci mbay mi jël li ma waroon def BRT dugal ko ci mbay mi mbay moom li may indil fii fukki at ak juróom-ñaari at dinaa ci am lu ay BRT laa ci am ak ay TER te loolu yëpp mbay la programme baa ngi nii ak yeneen programme li ngeen gis fële mu tegee yëpp ay programme valorisation des ressources am nañu suuf soo xam ne aujourd'hui suuf si phosphogypsum la tudd soo leen demee diggante euh, euh, Mboro ak ba Ndiaye di ngeen fi gis ay montagne montagne yooyu phosphogypsum la tudd mooy suñu exploité phosphate bi ba noppi suñu exploité phosphate bi ba noppi mbalitu phosphate boobu ak roche bi ak suuf si ni muy jaxasoo njëriñ bu rëy la ci réew benn États-Unis ñoom ñooy premier producteur de phosphate dañu jël mbalit moomu suy ko seen tool yi mais luy defar phosphate fu ñuy génne phosphate phosphate boobu ne ñu ne moom la ñu defaree engrais xanaa mbalitu engrais boobu war na war na nekk engrais États-Unis suuf soosu la ñu jël wis wis ko ci seen tool yëpp moo tax loo ci gis États-Unis ñoom ñooy premier producteur u lépp lépp ci àdduna ñoom ñoom ñooy premier producteur di ko bay mais ñun gëmuñu loolu li ñu gëm mooy lan mooy def ay BRT cest diir dire fi tubaab yi jeexale tubaab yi ñu ngi soog a am ay ay gratte-ciel te ba léegi ñu ngi tabax Dubaay bërki démb la juddu New York ba léegi ñu ngi koy tabax ba léegi New York ñu ngi koy tabax échangeur yi ñuy gis soo demee Chine ñoom ñu ngi soog a def seen échangeur mais ñun nag fa tubaab yi jeexale ñun foofu lañu ñu bëgg a tàmbalee defar BRT defar naa TER defar naa mais quand même faut sérieux fii la ñu war a tàmbalee muy mbay nañu mbay ba sénégalais yi kenn dootul xiif kenn dootul mar nañuy dund ci li nga xam ne moom la ñuy béy ñaata milliards lañuy importé ci jus ñaata milliards la ñuy importer ci ceeb ñaata milliards la mais loolu yëpp su ko Sénégal doon produit du des fii imagine ñuy jël huitaine huitaine defar jëlee ko Tambacounda def ko ci ay bateau yóbbu ko tugal huitaine boobu ñu defar ko ay jees neere ki tergal ñëw dellusiwaat di ñu ko jaay pour pourquoi mënuñu jël mille milliards yi ñu def ci terre bi defar ko ay usines yoo xam ne day defar ay tergal ki jesner foofu la développement di tàmbale lépp loo xam ne jëme na ci euh, développement ak ñi nga xam ne tey jii ñoo ko ŋànk école ya ñu jànge mooy école yu yu yu yu yu màgget yi xam nga soo soo liiree am na benn économiste bu tudd Robert Solow Robert Solow moo théorisé le développement exogène dañ ko ne progrès technique ak euh, croissance économique fan lay jógee mu ne ça tombe du ciel mu am yeneen économistes yu ñëw mooy Paul Romer Robert Barreau ñooñu ñëw ne ko progrès technique du tomber du ciel ba muy am croissance progrès technique da ngay ñëw investir ci capital humain investir ci capital technologique investir ci capital yoo xam ne tey jii soo jëlee nit nga fexe ba nit kooku su feebaree nga faj ko nga fexe aussi ba nit kooku jàng nga fexe ba aussi nit kooku am formation mais nit kooku ëllëg mun na la indil njëriñ boo xam ne lépp loo bugg ci croissance di nga ko am